di leen ndokkeel ci lii ñu bokk nag muy guddi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ñi ngi taataanati yàlla loxo yi metti woon de waaye nag yàlla rek nu dimbali de nee pexe mu ne gis nañ ko fi waaye yàlla ni patt rek ndax moom dafa waxoon ci xadis qudsi yab na aadama turiidu wa uriidu kun lii kamaa uriidu kun lii kamaa uriidu akun laka kamaa turiidu akun laka kamaa turiidu fa in lam takun lii kamaa uriidu fa in lam takun lii kamaa uriidu at'abtuka fii maa turiidu at'abtuka fii maa turiidu summa laa yakunu illaa maa uriidu summa laa yakunu illaa maa uriidu nit mënu ci dara. nee nit mënu ci dara nag. yàlla waxoon ci xadis qudsi nii. nee yàlla waxoon nag ci xadisul qudsi nii. yow doomu aadama yow laay waxanteel. yow doomu aadama yow laay waxanteel de. xam naa ni bari nga bëgg-bëgg xam naa sax bari ngay bëgg-bëgg de. waaye ko. waaye ma gàttalal la ko nag. soo bëggee sa bëgg-bëgg yooyu yëpp antu. soo bëggee sa bëgg-bëgg yooyu yëpp ant nekkal ma ci li ma bëgg man yàlla. yow doomu aadama nekkal ma ci li ma bëgg man yàlla rek. soo nekkee ci li ma bëgg. soo li ma bëgg rek. loo yootu jot ko. loo yootu jot ko. bëgg ma defal loo bëgg ma defal la ko. su loolu amul su loolu amul. mën nga def lu la soob. nga def lu la soob. nekk ci lu la neex nekk ci lu def lu la soob def lu la soob. li ma xam ba xam ko li ma xam ba xam ko. di daw ba dee. di nga daw ba dee. te li nga bëgg du am te nga bëgg du am. lu mu yàgg yàgg. te lu mu yàgg yàgg. li ma bëgg man yàlla li ma bëgg man yàlla danaa ko am ci yow. mooy loolu mooy lan. bés ñu takk la yeew la. bés ñu takk la yeew la. jébbal yàlla jébbal la yàlla wattaqu yawman wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah turjacuuna fiihi ila allah summa tuwaffaa kullu nafsin ma kasabat summa tuwaffaa kullu nafsin ma kasabat wahum laa yuzlamuun te nag wahum laa yuzlamuun yàlla xamul tooñ ne yàlla xamul tooñ yàlla ne yow jullit bi yàlla ne yow jullit bi yow nit ki yow nit ki yow doomu aadama bi bàyyi ma xel bàyyi ma xel bisa ngi ñëw boo xam bisa ngi ñëw boo xam ni dinañ la jagat jagatee dinañ la jagat jagatee indi la ba foo xam ni indi la nag ba foo xam ni dañuy gas ba mu xóot dugal la ñu dugal la ca. bàyyi la fa bàyyi la fa. ma des ak yow man yàlla. loo ma sa def. loo ma sa wax loo ma sa wax. dinaa la ko laaj danaa la ko laaj. jar na bàyyi xel loolu ne waaye bis boobu mbokk yi jar na bàyyi xel. responsabilité bi état yor. ne responsabilité bi état bakkan bu fi rot. bakkan bu fi rot. yàlla bind na ko. yàlla bind ko. te bala ngaa dem fenn. te bala ngaa dem fenn. yàlla dina ko réglé. yàlla dina ko réglé ak yow. ala kulli xaal ala xaal. am benn bés. nee dafa am benn bés. gannaaw yonent bi laay wax. gannaaw yonent bi laay wax. am benn gouverneur. am benn gouverneur. bu nekkoon ci benn région. bu nekkoon ci benn région. am benn pont bu fa nekkoon. am benn pont bu fa nekkoon. benn béy jaar fa. benn béy jaar fa. benn weñ xotti tànku béy ba. benn weñ xotti tànku ba. gouverneur ba nag. gouverneur ba nag. ku baaxoon la ku baaxoon la. ku mën a jaamu yàlla ku mën a jaamu yàlla. ba ñëpp nangul ba ñëpp nangul ko ko. bi mu génnee àdduna ba. nee bi mu génnee àdduna ba ñu denc ko. benn wëllëreem gis ko ci gént. benn wëllëreem gis ko ci gént. muy ñaq rek. muy ñaq rek. di fomp rek. di fomp rek. bu yoree serviette. bu yoree serviette. bu nii. bu nee nii. bala muy teggi loxoom bala moo teggi loxoom sax. ñaq yu ñëwaat. waaj ni ko yow. waaj ni ko waaw yow. ci gént gi ci gént gi. nii nga mel. lu xew ak adduna bi nga fi nekkee. ñëpp xamoon sa mbaax. ñëpp xamoon sa mbaax. ak saragal ragal yàlla. lii lan la. mu ni ko dara yóbbeewuma ko. lu dul benn béy bu mas jaar ci pont boo xam ne. lu dul benn béy bu mas a jaar ci pont boo xam ne. ba may nekk jamono. ba nekk jamono. defaruma ko woon defaruma ko woon. mu jaar fa mu dagg tànk ba mu dagg tànk ba. loolu lii la ma yàlla di xisaabee ba léegi. waaw kon nag ku doomu jàmbur benn. ñaar ñaar. ñett ñeent ba ñu am ñaar fukk ak nangam am ñaar fukk ak nangam. boo tëddee di nelaw doo boo tëddee di nelaw doo mel na léegi sax nag nee mu mel ni nag léegi sax faf nag. yóbbu nañ ci population bi. yóbbu nañ ci population bi. ñaari fan ñett yoo toog ñaari fan ñett yoo toog. ñu ni rey nañu diw. ñu ni rey nañu diw. ci ñaar fukki dërëm. ci def doon xuloog moom. ci def doon xuloog moom. miisu mburu miisu mburu. ci yu kenn xamul. te kenn du wax. te kenn du wax. ba kañ ba kañ. yàlla kenn ëpp ko yërmande. na yàlla kenn ëpp ko yërmande. li mu wax. li mu wax. lu mu lu mu metti metti. bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon. saafara saafara. am ba faaw am ba faaw. moo di ku rey ñu rey la rek. jeex na tàkk wa katabnaa alayhim fiihaa anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udna bil udni was sinna bis sinni wal juruuxa qisaas c'est clair loolu. nee loolu c'est ñu soob. waaye ñun daal ñoo def lu ñu soob rek. waaye nag sàcc bu dul raw waaye sàcc bu dul raw nag. jarul yàq nelaw jarul yàq nelaw. yàlla ni pat rek. yàlla ni pat wax na la mu doon wax. wax na la mu wax ba pare. pare na ca na ca. dafa dënirlu rek. nee dafa dënirlu rek. moom yàlla. nelawul nelawul. gëmmul gëmmul. fàttewul fàttewul. laa taaxuduhu sinatun wala nawm. laa taaxuduhu sinatun wala nawm. sina mooy ngëmment. nee sina mooy ngëmment. yéen a koy jàng ci ayatul kursi. yéen a ngi koy jàng ci ayatul kursi. yàlla gëmmul nelawul. yàlla gëmmul nelawul. kon yéen yàlla baaxee ngeen am reconnaissance. nee kon yéen bu leen yàlla baaxee ngeen am reconnaissance. ni am nañu mbokk moo xam ni kat. ni am nañu mbokk moo xam ni kat. jombul jombul. ñook moom ñoo bokkoon gis-gis. ñook moom ñoo bokkoon gis-gis. indi na ci xalaatam. na ci xalaatam. ba yàlla defal ñu lii. ba yàlla defal ñu lii. ngeen am reconnaissance. ngeen am bu toll ni ñëw ba ci man. ñëw du benn du ñaar. du kon yéen yéen a baax. waaye kon yéen gàcce ngaalaamaa yéen. waaye gàcce ngaalaamaa yéen nag. bu fekkonte ni bu fekkonte ni bii. réew mii ñuy wax senegal réew ñuy wax Sénégal. bind bii ngeen di joxe. bind ngeen di joxe. gis nañ ko jëfe ko. gis nañ ko jëfe ko. waaye kon bu boobaa ñëpp am jàmm. waaye fii li ko yàq léegi. waaye fii li ko yàq léegi. sëkk jëf. nee yéen nag sëkku leen jëf. kon nag li ma leen mën a wax manit waaye du ngeen ma gën a gore. mukk ci àddina. incha allahu taala. nee nanu yàlla dimbali rek. ba am ay résultats ba ñu am ay résultats yu positif. ñun ñëpp ñu gis ko. ñun ñëpp ñu gis ko. di leen ñaan rek. ngeen fexe kenn tas seen diggante. ngeen fexe nag ba bu kenn tas seen diggante. bu yàq seen diggante. bu kenn yàq seen diggante. bañu démb bu ñu nangoo tey. waaye ndax bañu démb bu ñu nangoo tey. seen i pexe jubul seen i pexe jubul. loolu rek la rek la. ngeen jéem a àndandoo. ngeen jéem a àndandoo. nekk benn say. nekk benn say. di yëkkateendoo di yëkkateendoo. di tëralandoo wax nag. nee wax nag. mënul nekk benn de. waaye xalaat na rafet. njaga mbaye ko wayoon njaga mbaye ko wayoon. yal na ko yàlla yërëm. yal la woon. nee moom njaga mbay la woon. moo ko wayoon ni wax mënul nekk benn waaye na xalaat na rafet ñu boole ko nag ba ñun ñëpp ñu ànd. ba ñun ñëpp ñu ànd. yàlla gis ni ñii kat. yàlla gis ni ñii kat. seen xol yi ànd na seen xol ànd na. yàlla defal ñu li bëgg.